chaque année warngeen ànd bokk ndey bokk mbaay defar lu mel nii ñu ndey siggil ngeen nu siggil ngeen nu ci biir mbuur ñooñu leen ci ñaanal yàlla nag di ci jiital le doyen Saloum yàlla na la yàlla fay infatigable guddi ak bëccëg mi ngi dox lan mooy defal askanu naar doyen yàlla yàlla yokk sa fan yàlla nga yàlla nekk ci kanamu njaboot gi vraiment kontaan nañ ci yow monsieur le maire mi ngi lay nuyu di la féliciter yow xam nga li nekk ci moom moom xam na li nga wax léegi rek loolu la tey jii moo waroon présider cérémonie bi bi ngeen koy waaj ba léegi yéen ay ànd loxoom musu fee jóg te inshallah allah fan yi comme ni ko waxé di ngeen def délégation ngeen dem ak mom lu mu ak mom lu mu ak yéen dina ko def donc vraiment di gërëm ñëpp tey ji bo gisé le conseil municipal est là ma commencé par monsieur le maire Louis Étienne Diouf di suñu dom di suñu xarit di suñu frère Mbour séeréer

le maire et l'ensemble du conseil mi deful délégation bu rëy ñëw mais moo ko yéen yéen a bokk ndey yéen a bokk baay doomu ndeyam bii di Madamba Sène ngeen xam ko bu baax lu mu xat xat xat xat nee na lu mu mën a def dina ñëw fekk si euh, euh, cérémonie bi pour wan leen ne sa disponibilité ak bëgg-bëggam pour lépp loo xam ne gàdd gi mi ngi koy def mu dugal ci loxoom. ñii ñëpp ngeen di gis fii ñoo gàdd gi ñoo bokk ndey ak baay ànd ak yéen ci lépp loo xam ne rek soxla ngeen ko mbuur benn bopp la mbuur séeréer la ñuy wax mbuur tukulóor mbuur séeréer mbuur coose mbuur naar c'est la famille donc nañu bokk ndey bokk baay pour développer suñu dëkk loolu mooy kàddu monsieur le maire bu kenn yéene kenn lu bon tey jii moo ndey moo moo jaboote ñëpp amul ku bokk boor fii am ku bokk fële mbuur la yëlif dañu war a ànd pour naka la ñuy mën a def pour développer la ville de Mbour te loolu dina ci ànd ak yéen li ngeen di def ci la partie culturelle dafa am solo ci moom muy fii muy tefes muy soose yi muy séeréer yi muy saraxole yi muy bambara yi lépp dañ ko war a dundalaat pour mu nekk la renaissance culturelle de la ville de Mbour. boo xam ne defal naa ko sama askan rek xeeb naa parce que ñooy suñu raison d'être lépp lu ñuy yëngu suñ ci gisul suñuy mbokk duñu sawar te monsieur le maire mi ngi ñu koy delloo bu baax a baax a baax a baax dama koy gërëm fii. Mademba di la wax ne ñi ngi gërëm monsieur le maire bu baax parce que sàgganewul ñun lepp lo xamné ne nañ ko mu njor ñu mi ngi ci nek guddi ak bëccëg donc vraiment tous nos remerciements li nak li man sama participation personnelle mako joxé muy une enveloppe de 200000 cent xamné boo maay def sama participation pour jappalé leen wax leen ne lépp lu ngeen nekk guddi ak bëccëg maa ngi ci xanaa lu ma yëgul mais lépp lu gàddi gi yëkkati lépp lu naari yëkkati maa ngi ci guddi ak bëccëg parce que jaral ngeen ma fii laa juddoo fii laa màgge sama lépp fii laa ko def samay samay jarbaat samay tànt samay yaay samay rak ñoo fi nekk lépp loo xam ne mën naa ko def rek pour ngeen dem ci kanam wala mën naa cee jàpp pour que du ngeen am benn problème incha allahu rabbi maa ngi ci guddi maa ngi ci bëccëg donc di leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax teraanga bi rëy na ci man li ngeen teral monsieur le maire rëy na ci man parce que sagal nga ñu cër bi mu ñu jox delloo ngeen